di rafetlu torop daje bi tey muy dajab sant yàlla avant muy doon daje bànneex sant yàlla parce que dafa amoon lu tegu suñu kaw yàlla teggi ko bànneex parce que ki mu tegu woon mi ngi nii tey suñu wet wax ak ñun wax ju leer wax ju dëgër wax ju dëggu sant yàlla aussi julli ci yonent bi pour ñi nga xam ne nekkuñu fi tey fii ñu nekk ci siège bi kër gi nekk suñu wet boroom kër gi dafa gaañu ñoo ngi jaale njabootam suñu xarit doomu day coon sekk gaañu na mais surtout li nga xam ni woo wundoon lii ay xale yu ndaw parce ñi ci mag weesu wu ñu ñaar fukki at ak nàngam dañu ñàkk seen bakkan ci li waraloon lii ñooñu aussi comme ni ko usmaan waxee fu ñu toll waruñu leen fàtte c'est des martyrs c'est des martyrs ils devront être fêtés chaque fois que la démocratie sénégalaise le pourra et le devra donc ñu ngi leen di jaale ñooñu aussi di mastawu ñi nga xam ni ñëpp gaañu nañ soo demee xool xale yi ni ñu gaañu gaañu yi am ñii ci bopp ñii ci loxo ñii ci biir ñii ci tànk te kenn onkul ces blessés font preuve de tellement de dignité que danga sant yàlla ak lu metti metti xale yi koo ci wax rek dafay ree ni la ah jar na ko jar na ko boobu mooy rey nit donc Ousmane dañu kontaan tey kontaan bu baax ba ñu sant yàlla pare pour recevoir le fii wax nga ko suñu ànd ak suñu wax yàgg na suñuy mébétit ñoo ngi koy doxal yàlla na ko yàlla mottali mais mébét yi dara lalu ko lu dul liggéeyal Sénégal liggéey ngir Sénégalais yi loolu moo tax ñuy wax di ànd di jëf lii nga dund nag bettu la mais ce que j'ai apprécié liñ ci wax lépp c'est la constance et la cohérence de ta conduite et de ton attitude durant toutes les épreuves bala moo ñëw bi mu ñëwee ak bi nga génn sa dara soppeekuwul changé wul du kàddu du jëfin du taxawaay du waxin nga sant ko yàlla bu baax sant ko ñi la defar nii parce que yenn yi jikko la jikkooy tax nit di am nu muy mele donc di sant yàlla sant say waajur sant nag ñi nga àndal ñëpp ah sa ñëw fii tey nag wax nga ko amoo droit gërëm kenn parce que li ñu def naam li la dal mooy prétexte bi mais réew mi tax nit ñi def ko su nit ñi naan démocratie liberté au Sénégal la ñuy toog a teg libéré Ousmane Sonko mm. parce que su loolu amul amoon doo am li nga doo dund li nga dund et ndokk yàlla bi nga defee lecture événement bi noonu que réew mi waa réew mi seen ëllëg seen melokaan seen dundin seen dund moo tax loolu lépp ne donc ñuy rafetlu bu baax lii nga dox tey tànk yu rafet la yàlla buñ ko gaaw fayante ah c'est vrai j'avais dit que tu tu tu ne devras jamais être le troisième loolu laa waxoon dama doo doon ñetteel bi te mu jaraloon nit ñu nag lu bari parce que nag trop c'est trop lu ëpp tóoru